bëri na trop de parce que lu ti am rek ñun ñooy cause bi lu mënti am ñu ñooy cause bi waaw parce que da ngay nekk fenn bëgg fa këyit bëgg gaaw nga jox waa xaalis cause bi yow la man la du ñoo ko def donc bu yokkoo ñun la wàññee ko tam ñun la mais am na comme cas si c'était dafa dafa dafa aw ci yoon jaar fi mu war a jaar corruption dafa mës a am mais loolu fa mës a jóge parce que da nga koy tere man mii man mii la man dama ko bañ mais su ma doon fayante bëgg këyit tey mu gën a gaaw dama koy def dem même ci tali bi koy def dem parce que bëgguma ku ma téye. bon corruption bi moom euh, vraiment instant moom mun nañ ni fépp la quoi boo xoolee ci gouvernement bi la njëkkee ba ba ci bas parce que tey boo xoolee nit ñi da ngay gis ñu ñii naan non gouvernement bi nii nangam nangam te boo xoolee ci biir kër yi la jiitoo kër yi ci boppam boo xoolee tey. même dans la famille si boppam sa mag bu la ëppee moyen wala sa rakk ëpp moyen sax yooyu maanaam ci diggante yooyu noonu sax da nga ciy gis corruption. saa lii yokk nga ama ay niveau dafa yokku récemment maa ngi doon dem di génn di voyage ñëw ba Padoa ma tax am ku may jël mais waaye dafay dafa dafa yab otoom ba mu ba mu fees xam naa fu muy yabee bu wiiree mi ngi taxaw benn gendarme gendarme baa ngi taxaw mais dafa ñëw waaye daa daa mel ni ku defee gendarme daa mel ni ku ku defee bi mel ni gaare nit ñi yéeg mu taal dem ko saa yow mënu ma noonu tamit daa am fooy jaarax ñoom après mooy loolu dama comprendre mais loolu moo tax ma ne la loolu bu fekkee bu dañ bëgg mu wàññeeku ñun ñoo ñun ñii ñu population bi ñoo ciy jóg xeex ci. xam nga te nga dem bëgg liggéey xamoo fa kenn nangam nangam corruption de ñëwaat hôpital yi corruption yaa ngi ci. foo dem daal maanaam daal affaire bi daal dafa mel ni léegi c'est partout daal mais nag nit ñi nañ jiital yàlla te xam ni tamit loolu maanaam yàgg-yàgg àdduna day jeex. te xaalis te xaalis du dara ay kayit la rek waaw maanaam ngor daal moo moom maanaam ngor daal mooy lépp tey boo fi corruption wala nga nangam nangam ba am ci leneen tamit boo ko lekkee riba la wala nga jox ko sa njaboot loolu maanaam war nañ jiital daal yàlla quoi waaw corruption bi moom ñu ngi koy ña man gëwuma ay daan gëwuma ay jàpp ay tëj man gëwuma tëj man bëgguma tëj pour mu pour mu jeex Sénégal ñun ñoo ciy jug ñun population bi ñooy jug ñun suñu propre gré ne dootuñu génnee xaalis dootuñu def quoi que ce soit parce que corruption boo dëgg xaalis la boo lijjanti kayit na jaar yoon boo dem fenn na jaar ci yoon boo dëj ci tali bu fekkee ne ko en règle ñu sanctionné la parce que ko en règle ku doon tal lu ñu lay laaj permis de conduire assurance sa mbir la ñu lay laaj bu fekkee dafa mat sëkk dañ lay téye dañ lay tóojal dañ lay circuler boo matulee nga ñëw toog gàtte sa permis nga jël am loo ci lal jox waaj waaj jël ko ne la ak ci demal loolu rafetul. ñaawul moom carrément. parce que boo xoolee jeunes yi tey ñii dañuy am compétence ñii mën a liggéey ñii am compétence bi dem ñu kale la kay ñëw indi dara ñu jox ko xam nga yooyu daal moo fi bari daal instant daal ci population bi mais nag ñu ngi ñaan nag yàlla xam nga yàlla may ñu ay njiit yu jub may ñu ay tamit population boo xam te ne am na lu ñuy bañ quoi même ku leen nar a corrompre ñu bañ waaw man daal loolu laa ci gis daal moom. gars yi daal war nañ ci gën a góor góorgóorluwaat daal jiital borom bi daal te xam ni àdduna day jeex. xale day dee mag day dee xamoo mun nga ñëw ko euh, def corruption wala nga def leneen lu ñaaw même pas vingt quatre heures doo ko fekkee waaw lii xew suba yàlla ko xam nañ nañ tegu daal ci yoonu njub bi daal man loolu laa gis mais daal en tout cas moom phénomène bu garaaw la moom bëri na trop ci population bi vraiment. ñun ñun d' abord ñu solidaire bokk doon benn bokk ndey ak baay jug xeex suñu réew loolu mu jóge fi tant que ñu ngi koy def parce que dëkk boo gis ci àdduna am na défaillant donc c'est les défiants qui sa ça parce que man du ma def man mbuub wallaay du ma ko def parce que bëgguma sax ku ma ko def loo parce que mu dee dee jaar nañ daara xam nañ dara te xam nañ corrompu lu may jëriñ yomal xiyaam ko jokkal xaalisam mun na la lii nga lii ma jox ko xaalisam bu yomal xiyaamee ne biiram dafay toll ni jaan biiram day tol ni néeg te biir bi ay jaan ciy nekk mal yomal xiyaam kooku ñu xam ne kii dana dundee alalu corrompu loolu boo ko defee sa xel am ñu bëri xam doo ko jëfee mais am xam dañ koy xam pa dañ koy jëfee pour lan yàllaa ko wax mu ci alxuraan loolu bu duggee bu ñu duggee mu dañ ñu ciy jóg. nañ lu ñu war a def nañ ko def gis nañ population bi sonn nañ xam nga jeunes yi chômeurs yi bari na da jàng ba sonn doo liggéey yow nga am sa métier doo am foo ko liggéeyee nga nekk marchand ambulant foo teg ñu jëlee la fa nga yor maanaam même yow léegi sax da ngay jënd sa kër sax nit ñëw jaay doole. nangu ko maanaam daal injustice bi injustice bi bari na gouvernement bi nañu xam ni population bi ñoo leen di fal yaa ngi dégg nañ leen gën a bàyyiwaat xel jàppale leen te xam ni nguur day jeex Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi Macky Sall mii fi nekk dina fi jóge keneen ñëw kon boo fi nekkee tam na nga def loo xam te ni ëllëg boo ñëwee say doom ak say sa nettali rafet daal mais ñoom li ñu war a def ñoom xam nañ ko nañ ko def jàppale population bi. man daal moom message boobu laa leen di lancé. dimbali ci ko fekkee julli la ñu dimbali fekkee fekkee tamit sunu sunu sunu mbokk tam ñu dimbali leen ci loolu parce que loolu rafetul yow gisee yow man xiyaam ñëpp taxaw ñu xool kenn xam ke ke ke danoon danoon dundee alalu alalu corrompu ça imagine loolu te li nga defee moo lay fekk fële ah te yàlla ma yàlla baal képp kuy dundee alalu alalu corrompu ça doo kenn du la ñeede doo gis mu yor iPhone bu bees tàq doo gis mu sol jeans bu bees tàq doo gis mu sol yenn gën a bëri yow xanaa déggoo ma la expliqué mosoon naa dal ci benn coup du ma du ma wax turu société bi mais waa dafa ñëw jox waa ji neuf cent mille francs la ko jox waa jox ko marché bi te fu mag la ci senegal fu mag a mag wallahi azim fu mag neuf cent mille la ko jox te ñun dañu pare woon pour ñu ne suñu papier nekkoon en règle man suñu lépp mat. te waa ji moo ñu ëpp doole parce que moo moo moo bux waa ji xaalis gagné marché bi ñun ñu dem après après ñu ñeneen xëy xëyam taxawaalu ah saa sa lay baadoo la ñooy fay les pour kase parce que fii xam nga néew doole tooñ la daal waaw kontaan